por el mar. quoi initiative lu leen xam rek liggéey rek ñun loolu lañ gëm quoi toog xalaat réfléchir teg projet liggéey loolu lañ gëm quoi du leneen. waaw Sambale mooy li nga gis rek équipe bee ngi nii gars yëpp idée si ñoom la jógee waaw xam nga rek lii defoon nañ ko daaw nañ ko defaat ren dañuy ñaan daal ñu ngay fekkee at yu bëree bëree bëri te am na yeneen yu nekk suñu kanam tamit waaw ñu si siy waxtaan équipe bu baax. waa jori mooy li nga gis rek mooy man ak ñoom lépp xale la woon ñii dama bokk ñoom école football ñii football ñoom nawetaan ñii ma bokk ñoom centre forcé wu ma si kenn xamante maanaam ñoom ba âge ba fii nii yàlla def lu muy def ñoom ñu jaar ni ma jaar nii ma koy sant yàlla bu baax baax na ba su ma leen woowee dañu may wuyu si waa jaraaf waa jaraaf gis nga li nga gis mooy fi ma nekk ñoom ñoo ma permettre ma am lii maanaam dama leen jox lu ñu moom moo waral ma tëgg a mas ñoom ñu may ma ko mënoon nañ ne déedéet du ma du ñu jouer mas bi mais dañ doon ñaan yàlla tey jaraaf bu gënoon bu gañoon demi final bi fii dina gënoon li la yàlla dogal moo waaw waaw di ko rafetu la lii lu rafet la comme gars yi ñëw vacance ak ñu ñu doon jouer championnat bi ñu bokk quoi que am na ñoo xam ne fii ñu bëri ñu ngi doon jouer championnat bi daje nañ fii yàlla def ñu dem tey ñoo des quoi ñu ñëw ñu daje fi di jouer match amical neex na trop kontaan nañ ci trop tamit waaw lu nice na parce que ñun si dëkk bi lañ dëkk dëkk Médina Gueule Tapée donc bu ñu amee ay vacances yi profito quoi jouer lu mel ni jaraaf quoi tu mooy suñu équipe quoi tu vois buñ ko defee tam war nañ ko def buñ ko deful war ko def quoi ñëw jouer gars yi ñëw seetaan aussi xam nga la si ñun tamit quoi parce que dañuy genre mel nii moo tax quoi. yaa sama gain la moom depuis enfance quoi yàgg na du léegi quoi moom du léegi du football sax moo ñu boole quoi mooy loolu. suñu teewaay nag li ko waral moom defe naa ñëpp dinañ ko xam ndax bu ñu waxee kii organiser lii Mouhamed di mbokkum taalibe ñu bokk di dund sëriñ bi ñu gën ko xam ci Chamboulé maanaam daanaka maak ñoom seen enfance yëpp ma fekke ko ñu bokkoon dëkk Gueule Tapée ba ni ma tuxoo Almadi teewul dara ñaawul ñuy ñu yaru am taalibe ba pare doon ñu ay tutank yu ambitieux ñu nangoo liggéey ba pare di dox ci solidarité solidarité boobu ñuy dox nag ma gis ko ci ñoom weeru koor bu jotee li muy def ak yeneen yeneen ak yeneen ak ni muy doxee ci social ak bu vacances jotee yi muy organise te ñun ñuy doomu Gueule Tapée di doomu Médina ah donte fu ñu mënti tuxu tamit suñu xol ak suñu xel génnul Gueule Tapée ak Médina ndax fa lañ am fa la ñu sëriñ bi cëral moo tax bi moom amalee lii def ko tiim pour chamboulé ak waa jaraaf te ku ne jaraaf ne Gueule Tapée ne Fass Colobane ne Médina ñun tamit ñu teew fi rek soutenir ko dooleel ko ndax moom day bëgg lépp lu muy yëngu rek ñun ñu teew ci même bu dee cinq minutes wala dix minutes dañuy ñëw sax def acte de présence ñu xam ne loolu dina sedd xolam dinañ ko def. waaw moom match bu neex la te chamboulé suñu waay la sama mag xam nga sama gaan donc bu defee lii affaire yi day nice quoi gars yi ñëw vacances xam nga gars yi xarit yi ñëpp àndandoo ñëw foo kafre et tout loolu nice la quoi donc chambre moom dañ koy ñaanal rek xam mu koy def ay ati ati at affaire di neex quoi parce que lépp c'est Médina quoi tu vois. noonu la mën a wax sa diggante ak chambre. sama mag la quoi day ñëw gàllee tu day seet sama mère et tout sama gaañ la quoi donc en plus ku baax la ku baax la vraiment ku baax la quoi. non mais affaire bu nice la tu vois bu nice la chambre moom xam nga nitu ñëpp la quoi. bu gars xew la day teew donc moom kon genre bu jëlee initiative bi xam nga affaire bu nice la. waaw dañu koy rafetlu xam nga yàgg donc xam nga yi yëpp xam nga ñoo foogandoo depuis xale donc voilà quoi. Hmm. waaw yoon la moom xam nga moom moom nitu gars yi la quoi. moom macha allah yii lay def souvent di dajale gars yi après am na ñoo xam ne da nga leen a gëj a gis am ñoo xam ne ni chaque année comme vacances yi nii ci nga mën a profité pour gis leen. donc ba organiser lii dañ koy rafetlu te plaisir la quoi pour ñun pour gars yëpp mooy loolu gis nga. waaw yàgg na de man na ko yàgg na de depuis Mbëdi Pom la quoi. donc ñoo footballandoo Mbëdi Pom. donc tout le temps ñu doon ànd bañ nekkee Mbëdi Pom après ba tey nii mooy loolu donc bu xewlee damay ñëw bu ma xewlee day ñëw donc ma nekkee bu ma ñëwee vacances tamit day ñëw tout le temps daal mooy loolu donc. saa su xewlee daal dañuy teew moo waral ñu teew nii tamit ak